gannaaw suuxu benn gaal ay fan yi wees ca ndar géej te mu jur coow lu bëri jëm ci phénomène bi ñu duppe Barça wala Barsak dellu si waat ak doole nag ci réew mi ay néew ñu ngi wéy di génne ci waax yi fii ci région bu Saint-Louis lu mat fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama jot nañu leen a for ci xibaar yi mu jiw

xalé xalé bi bi gën touti ba mag ñi ci eh, màggat kenn la wul bis boobu chef de village fi la nek ak autorité yi ba fajar ba daanaka ay 4h du matin xam 3h yi ñun ñëpp son nañu man ma doon nekkon ci boru geej gi di ramasser koor yi di yef sama gal di indi ñu jall wa dëkk bi chef de village boobu wa dëkk bi wa dëkk bi ñëw taxaw pour enterrer enterrer néew ndax ñun xamunu leen. fi ci tassiner te lu tollé ci ñetti junni ma adama di fi yeewoo lii ëpp ci néew yi ñu fore ci wax yi fii la ñu teerse ci anam yu day yow dayoo. circonstance yu doy waar doy na doy na waar trop circonstance yu doy waar ndax ay xale yu ndaw lañu xale yu tuuti dégg nga amaguñ am na sax ñu si amul 18 ans dégg sacrifier seen bopp comme ça métti na trop ndax dëkk bi keroog euh, gars yi joy nañ ba tey. am na ñu nga xamante ni xëy na si wàllu visage yi xam nga visage yu nit moom ci géej du yàgg dégg boo daan am deux jours commencé déformé dootoo xam kii kanam dégg nga e mom amna am si mais mem comme membre de corps yi si principal amul bu ci daj mais nak amna sen seen kanam yi mënutoo xàmmee ki yaa ko mom wala moomoo ci fuk ak juroom ñenti yi kilifa yi yore karangi gi ci rew mi fësal ci yañu gis nak fuk ak ben yi terse. ci dekk bi lañu tercé juroom ñaar yi sax ci seug yu tassiner lañu leen muju denc ni seeni bammel yi ngeen di seen def naa àllarba wala alxames la ñu dégg ni am na gaal gu suux si bël bi euh, waa dëkk bi mobilisé wu ànd saper euh, sapeur pompier ak waa service di d'hygiène bi ñu ñëwee récupéré nañu six corps fii yu nga xamante ni dañ leen denc seen ay armeel ñoo ne ay bàmmeel ñoo nekk nii mais am na si corps bu nga xamante ni aussi seen ay mbokk dañu ko xàmmee à partir euh, bracelet bi mu soloon kooku dina ko yobbu donc fi premier jour bi 6 corps lañ fi enterré euh biñu démé bay ce suba ce ñu am aussi ben corps bu ñu gis fi moom ñu jël ko denc ka fi mu nek donc 7 corps yu nga xamanteni ci suñu cimetière yi fi dañ leen denc mais aussi euh à Mumbai am na ñetti corps yu nga xamanteni dañu fa feeñ mais comme léegi ñoom dañu nekk ci état bu nga xamanteni ni kenn dootu leen mëna déplacer ñoom it sur place lañ leen denc pour dire donc amna na fukki koor ak ben yu wóor daal yu nga xamanteni denc nañ leen fi ci bir ganjul ganjol nak xew-xew bi ni mel du lu njëkk mu fi am Lamine Baraka di njitu village bi ci bopam di xibar ni filé bokk na ci gox ya ñuy tëmbee. Gandiol bokk na ci zone de départ yi nga xamanteni yi gëna importante au Sénégal ça il faut le dire. Ganjul fi bari na xale yu nga xamanteni ni dañ fi déparé sino aussi xam nga Ganjul eh, bo démé mol yu bari suñu xale yu bari tay ñoo nga kafuntine ñi nga Mbour ñi nga eh, gambi ti ñoo ñëpp dañuy dem fi dama ne la xale bu nga xamanteni ni xale lu mol nga wala xale bu nga xamanteni da nga don jang ba ba sa xel nekul ci lu gis gal ba dugg ci pour dem Espagne. pile de trois gaar teer sama kanam fi ño xamni ñi xamul dëkk après ñun ñoo leen mujjé dalal ci guddi ay plus de 20 heures nit jóge ay yarax ay yof Joal xam nga ay nit andi leen fi nax leen xamunu fu ñu jëm fi ci xolal longue distance bobu non nga ñëw ba fi xamoo fi kenn après bëgg dem lépp bëgg dem waral lool dal nga liggéeyoon at mi benn at mi nga liggéeyoon benn six mille après ñëw yàq ak si benn une minute xam nga loolu tamit day gaañ jeunesse bi ñu bare bare su fekkee xamoo lu ndox mel wala xamoo lu ndox mi ndox mi bindoo nga bëgg a ñëw bëgg dem tamit warul tax ñuy saa ya sànq suñu bakkan quoi man si li ma gis. xam nga fii moom gaalu clandestin kenn du bu dee wàcc doo ko yëg dégg nga yi mën nañu dëkk sa euh, mbuur waaj a tas neer dégg nga wàññi yow doo ko yëg ndax gaal yi de passage danoo def rek danoo ñëw rek jël avancé dégg nga danoo teer si embouchure bi rek dem dégg nga wàññi da ngay dégg rek ñun la ñaar gaal dem na wala benn gaal dem na doo mënoo ko xam mais gaal gii fi amee choc nii du woon gaalu fii gaal yi je pense ay côté mbuur yi wala dëkk yooyu wala Joal wala wala côté yooyu fa la bi

2007 moom it la dugg si gaal yi te booba def na formation à l'EFI ba pare di xaar affectation bi mu dem yëguma ko eh, noonu lañ ko ñàkk waa Gandiol nag lenn dong lañuy ñuy xaarandi ci kilifa yi mooy rek ñu gën a taxawu ndaw ñi ñun nit bëgg nañu ñun ku ñu jàppale

man leen trouver ay formation defal len euh, jox len ay financement jàppale len si ay matériel agricole ak ay matériel de pêche te état banki def loolu def naa ni mën na permettre ñu soxla ñu bañ di génn fi di jël yenn risque yenn tundu yi nek Gandiol jot nañu fa duggu ngir saytu taxaway bi ñu amé ci xew-xew bi ndar géej lañu mujjé terre ci fi ci dak ci Gendar ñukoy tudd lu bari ci phénomène bi ñun waa surtout ngeen Ndar langue de Barbarie bi yëpp affaire bi ni mu bindoo ni ñun la gën sake ñun la gën a touché parce que li tax mu gën a touché mooy gaal yi dañ fiy teer rek tey koo wax a nga naan gaal ga dee teer moo da doon clandestin sa Ndar nit te Ndar tëggunu ko gaal gi nii nu ko déggee nii ni ngeen ko déggee noonu leen ko dégg an yeewu suba rek dégg pompier di daw xamul gaal fu mu tëmbe xamul fu mu jóge du benn doomu làng de barbarie bu nekk ci gaal gi wala ko ci bokk ñun demunu dem dem lu nu yabalunu sunu njaboot ku dem yaa dem sa dem bopp rek kenn tàggoo gi fi sa papa ni damaa dem mu la demal mënoo takk jabar bàyyi fi jur doom bàyyi fi dem Espagne ma la yoral la ko sa gannaaw ñi ngeen di gis nga gis ñuy wax fi xalé yi yi nekk fi kenn ku ci nit ñi am nañ seen jabar takal na leen jabar ñi ñoo nga me ñett doom ñi ñoo nga me ñent doom duma la yor ba nga mag ma takal la jabar nga ma doom nga dem Espagne mala kay dundal sa gannaaw togal nga dundal sa jabot fi ci dëkk bi ñun loolu la leen sant tok leen ngeen dundal seen doom yi fii dundal lu ñun Espagne jee nu fa demee dundal lu ñu leen dara amna ci ñoo xam bu fi jógee bu leen kenn xamul ci ñoom dara

amul benn mol mo xamanteni gis na la nga nek ci gal gi ndax ñun dañu jégué jakk ji rek ñew gis gal gi di xat ci tefes gi bi ñu wàccee tefes gisuñu benn mol bobu sa mol yi daw nañu gal gi xeyna autorité yi ñoo mujj ñew gis gal gi tek ci loxo bay am ñun ko santone ñu ajal leen fi gal gi lolu mo fi bayyi gal gi ba legi fi fi xalé yi dem gisuma ku ci jaar kaw du dem fenn parce que xamna ni visa ñom man nu ko am am nañ est lool que loolu du gàllankoor. rëy na rëy na lool lool lool parce que visa dañ ko war a am ku bëgg a dem dem ku bëgg a toog toog mais su fekkee ne damay wut visa awma ma jaar fee jaar si ndox mi dem àgg am ñaari at ñetti at ñeenti at yàlla bi ndax ñëpp du ñu bokk a ñàkk ñëpp du ñu bokk am soo ñëwee indi sa am am ma wut visa aw ma visa ah boo ma boo ma boo ma waxee yoon ma jaar ma ma dem moo indi loolu mais visa bi bu yomboon ah ragal naa ni mbir mi mën na wàññeeku. moné ci ab classement bu yes ci walu visa fi ci Afrique te kurel bi di Schengen Visa Info fësal ko Senegal Sénégal mi ngi fété ci juróom bennel place ci lu toftal juróom fuk ak juróom benn djuni candidat yu ñaan visa fi ci Sénégal lu toftal ñaar fuk ak ñetti djuni lañu ko jébbal mu tollé ci téeméer ak ñaar fuk ak juróom ak lu tek ci la djur ci ay millions lay jafe-jafe nak bokk na ci li waral waa jilee lépp turam taamu yoonu géej gi. feebar moo tax dew kon damay dem sama yoon ndax Sénégal ni mu mel man soutien de famille la man du ma ragal parce que tekki moo ma tax a jóg te dama bëgg lu may am ma am ko honnêtement quoi mhm. mais fii ak ni may liggéey dafa métti trop. Mhm. kon toutes waaw te am na ñoo xam ne xamu xamuñu ko te maa ngi dëkk ak ñoom mhm. ñu gis ma may dox nii di dem. tout temps bu ma dellu see ma jàpp sama liggéey yak suma khalis jema a liggéeyaat dara nek ci xaddiwuma ba legui tay ti xolam muju sama muju mujjum voyage tout temps yeesu jarul seede songoon naa fi benn voyage mais bima bima ko songé ba bima ko songé ba nek ci après feebar moo ma parce que man diabétique laa tout sama avant ñuy korité dañ din sama ben baaraam tank man dañ din sama ben baram tank mais dama gëmoon dama gëmoon dama gëmoon dama gëm tekki mais amoon naa benn paa bu baax mooy papa yi ki ma booleeg yow bon kooku paa bu baax la gën na gën na ma nag da gënoon na ma gën na ma dalal nag quoi. moom mi le nag jël na gaal yi juróom-ñetti yoon ba file pexeem sottiwul ci ay kàddoom yu ci bëri ci ay tukkeem yooyu ndar géej la duggee gaal. te ñeeg fois bi nag boobu nag xaw na compliqué nag quoi xaw na compliqué trop. parce que gaal boobu gars yi tëgg nañ ko gaal boobu dafa am ay tëgg nañ ko xanaa ay quatre fois euh, kii gendarmerie ñëw gars yëpp tasaaroo quatre fois bi léegi bi ñu tëggee quatre fois après gaañ bi jox ñu joxante gaañ bi rendez-vous Mauritanie Mauritanie gaañ bi jëlee gaal bi fii am ñoo xam ne sax si lañ dugg dem boobu nag dafa compliqué quoi parce que boobu amon na ay décès amon no na deux morts quoi bi ñu bay wadja a yegg diggante Maroc ak ki ak Espagne amna ñaari mo mais gaay dañ leen sanni parce que parce que dañuy wax gaay ni leen actuellement pour ñu dugg Espagne mëno fa yobale ay nit ñu dé parce que kon ñepp ñun ñepp dañ am problème après gaay nek di discuter ci lool moy capitaine après gars yi gars yi ni non il faut que ñu jàppoo leen ñu sànni leen quoi parce que ñii mënuñu leen bàyyi bu leen fi bàyyee comme que actuellement ni ak temps bi mën nañ ñëpp ci biir gaal gi te mën nañ indi feebar quoi après si leen gars yi jël jàppoo laxas leen yi nu sangoo woon après ñu sànni leen mais bi nga demee bay dugg Espagne noonu gis nga sax ay quelques yoo xamante ni ñoo ngi faaru noonu ba mel na lu mu nëb noonu di faaru noonu dem mais gars yi faale ñu leen rek parce que parce que gars yi dugg la ñu gis mais boobu moom dem nañ ba yegg quoi mujj yegg ga waye dañu ko delu ci la dipé rek refoulé mu delu ci sax ci liko gëna marqué ci ay tukkem yu bari ben goudi ñuy dem tombel jamono sedd mi gi jaa ngi ngi tok ci ci bogo càmmoñ bi di nelaw ni ma ngi xalat sumu keur toog ba si yàgg gaal gi këpp te maa ngi nekk ci ay nelaw bàyyi dama doon diig diig naa lu yàgg ba bàyyeeku mais mu mel na yàlla daf la joxaat beneen beneen kii moo fuuti mais xoolal mais période yooyu am nañu sax ñu ñu ñu gaal gi sooxee ci guddi googu am na ñu dee ci biir kii parce que géej mu moo yëngu woon mais gaal dafa dëpp mais xoolal gaal gu mag. gars yi jafandu si xam nga yàlla rek mbiru suñu borom dafa kéemaan de jafandu si jafandu bu dëgg da ngay dem ba gis nga jafandu nii moo gën a metti fii gis nga bidon essence bidon bidon essence tey jii bu rëccoon ci géej gi nii nga fay ba jàpp ci nii noonu muy defee nii soo moytu mu yàq sa yaram yëpp akay lakk am na ñoo xam ne dañ topp loolu ba dañuy dem ba seen loxo yi day bàyyi jafandu bam ngay jafandu ni da ngay dem ba day sa loxo yey tok do sa loxo dootul mën feey dootul mën da ngay ko dem baye ko suuf na dem parce que dootoo mën def ben réaction parce que sa tank mooy nek ci bir di di jeex di ki sa loxo jafandu si kaw booy ko mom do mën daara da ngay dik mom da ngay dédé de bu son jafandu rek jafandu rek bu la yalla di dimbal def lay dimbali après xam rek bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu sauvé noonu da ngay nelaw nelaw boo xam ni da nga naan man daal est ce que yii quoi bilda da nga est ce man lii may song nii jax man maa ngi léegi su ma deewoon nag mais lay la lay indilaatal beneen sixième sens ba nga jàppaat yoon yow doo ko xam sax da nga naan da nga naan man xanaa danay xabtal rek may dem dundin bi naka noonu nekkin bi ci biir gaal yi moom mi nga xam ne na ñeent fukki at ak juróom di ci dellu siwaat góor gu nekk walla jigéen booy doom toilette da ngay bëgg nekk à mais ci yenn saa am na ñoo xam ne ay tappat la ñu mënuñu mënuñu dem ci ginnaaw gaal gi mais am ñoo xam ne si siwo bi ñu toog fi dañ leen jox siwo fi ñu toog ñu defee fa ñu defee fa yëpp wala ku mën jàppandu si ginnaaw gaal gi mooy fi chauffeur bi ne nga dem foofu ndox mi kenn mën la ko expliquer ceebu góor ceebu góor ngay lekk ba ba ngay pare ci ba ngay yegg ceeb rek ngay lekk ceeb kese ceeb ak jën kese ceebu góor yoo xam te ne góor ñoo ko togg mooy xam nga rek yëfu gëree lañ ko la ko gars yi di def am na ñoo xam te ne nag miinu ñu lekk bi xamuñu ko ñu nag ak ñi nga xam te ni xamuñu lekk bi xamuñu loolu xamuñu ndox mi ba pare ndox mi yenn saa day am day xeeñ xeetu essence léegi nag ak sëccaay bi am na ñoo xamante ni dañuy waccoo waccu waccu waccu boobu nag moo leen di sonal dañuy dem ba laatikaaf lu ñu lekk lu ñu lekk waccu ko mu di doomu ndar situation bi muy dund nag tey bëri na ci ay morom yu dëkkee ci ay gox yu fasantiku ci réew mi ñu ci ëpp ñuy jaare ci mbëkk mi nag ay gox yu ci mel ni Kafountine mbuur Kayar Tëngéej ak yeneen la ñuy faral de Baiacu.